ma ngi koy lem cey mystique bi nga xam ne gis nañ ko fi cey mystique bi kër caatu daaw dafaal cey bi kër caatu daaw dafaal mi ngi noonu Massamba caméraman Medina TV jërëjëf mi ngi koy jaayante ngir mën leen a indil image yi nga xamante ne moom mooy les premières caatu daaw dafaal fii ci Géejawaay Masamba mi ngi noonu yéen a koy seen kon muy def liggéey bu am solo ngir ngeen mën a yi nga xamante ne moom mooy les premières caata ngi noonu caata caatu daaw dafaal mi ngi waaj a génn gis nga ginaar ba gis nga seeq ba nga xamante ne yor na ko mi ngi sol cuub daal di jël ay petaaw laxas ko ci bopp bi ña ngi koy sotti ndox ña ngi koy sotti ndox ña koy sotti ndox caatu daaw dafaal mi ngi ca kër ga ñu koy sotti ndox. caatu mi ngi noonu. caatu ñu ngi koy sotti ay biteelu saafara ba tey caata ngi ci buntu kër gi taxaw ñu koy sotti ay biteelu saafara. caat mi ngi si buntu kër gi taxaw ñu koy sotti ay biteelu saafara ngi noonu caata ngi noonu ndeysaan yéen a ngi dégg waa géejawaay ndeysaan sotteekoo na meew ma sotteekoo na meew ma laay yëngal na bopp caata ngi noonu caata ngi noonu caatu Daouda Fall caatu Daouda Fall mi ngi noonu sotteekoo na soow ma xamante ne gasoon nañ ko daal di ciy sotti ngooñ bi ko caas pax boobu la di suuru ginnaaw bi mu sottee ko ay saafaraam sottee ko meew caat mi ngi suuru mi ngi noonu caatu Daawda Faal xale géejawaay bi ndeysaan caata ngi noonu ànd waa géejawaay ànd ay mbokkam ak xaritam ànd ak confiance mi ngi noonu caata ngi noonu caat ngeen gis noonu ndeysaan caatu Daawda Faal mi ngi noonu taxaw ginnaaw kon bi ngeen gisee mu gas pax ñu sotti ci ngooñ daal koy taal moom la tim mel ne kuy jaaru xale baa ngi noonu doomu géejawaay bi ndeysaan caat mi ngi génn caat a ngi génn caat a ngi génn mi ngi sottee ko saafara génn noonu jaayu na daw na dugg ci oto bi wutali arène nationale caatu Daouda Fall ngi noonu oto boobu ngeen di gis moom la caat nekk mbokk yi oto boobu ngeen di gis moom <coughs> ko mi ngi noonu dugg na si oto bi yëg nañ ñu ngi wutali fi nga xamante ne moom mooy oto baa ngi noonu oto boobu ngeen siin bi ngeen seen ci la caat dugg ginnaaw bi mu defee ay débat déemam daal di jaayu xattalu daw na dugg si biir oto boobu wutali arène nationale tey Fouta production loo tëgg Papa Ndoye doomu Fass bi ak nga xamante ne moom mooy caatu daaw dafaal doomu géejawaay bi ci kanam tuuti arène nationale ñun ay doomu géejawaay lañ Ousmane Diop rek la ñuy topp caat daaw dafaal xale bu ndaw la barki Seydina mu xame dañ koy ñaanal mu dem ba nekk roi des arènes di ñaanal Lac de Guiers 2 mu génn fu mu nekk. jaajëfal jaajëfal géej waa lañ dëgg géej waa lañ dëgg wóor na yàlla jaajëfal géej waa lañ dëgg ñun ñun lu géej waa ñor ñun lu géej waa ñor ñu jaajëfal jaajëfal mën nay doole jaajëfal sël ñoon ñooy waa géejawaay ñoon ñooy waa géejawaay ndeysaan caata ngeen ci oto boobu ngeen ni seen caatu daaw dafaal mi ngi ci oto boobu ngeen ni seen ginnaaw bi mu defee ay débat débam mbokk yi ndeysaan dugg na ci oto boobu daal di xappalu di waaj waajal waajal li nga xamante ne moom mooy wutali arène nationale gis ngeen convoi bi gis ngeen xale yi génn nañ en gis ngeen ñi nga xamante ne ñoom ñooy supporters yi ñëpp génn nañ tey ànd ak nga xamante ne moom mooy caat ndeysaan ngir gunge ko ngir wan ne ko géejawaay moo soxla ndam moo leen ñor ndeysaan muy loo xam ne tey képp ku ko fekkee rek sa yaram daw na ndeysaan gis nañ li nga xamante ne moom macha allah bu bëree bëri tey génn na fi mu mel ne tey daal mbokk yi bis bi caatu Daouda Fall bu ko xool physiquement xam ne ci entraînement def na la ca war waaye ci mystique tamit def na lépp li nga xamante ne moom moo war ci bis bi mi ngi noonu mbokk yi ñi ngi waaj a départ national arène nationale Médina TV ngeen ci àndal saa su nekk bu leeree wala mu neex Médina TV kase la ngeen ci ànd ak Massamba mu baax mi caméraman bi nga xamante ne nee naa leen lu mu filmé wul ci réew mi baaxul xalif général kullu caméraman tey nee naa leen fii liggéey bi yombul woon lépp a métti woon waaye da koo jaayante ba dugg ci biir ne dama leen indil li a xamante ne moom mooy image yu Thiatou Daouda Fall les premiers images sur Médina TV rek ngeen koy amee mbokk yi mi ngi noonu xale yaa ngi waajal ñu ngi waajal wutal arène nationale rond point baa ngi nii dafa saturé ñëpp a génn tey ànd ak ki nga xamante ne moom mooy yaakaaru géejawaay bi xale bi nga xamante ne doomi mbër jàngil bëre yàgg-yàgg dees na la mi ngi noonu caata ngi noonu convoi baa ngi noonu ndeysaan ma ngay départ wutali arène nationale ndeysaan mi ngi noonu caata ngi noonu waaw waaw léegi léegi mbokk yi lañ leen di jox rendez-vous arène nationale ànd ak yéen ci li nga xamante moom mooy bàkk moom mooy tuus moom mooy neexal lépp loo xamante ne rek day am tey ci arène nationale ci combat bi nga xamante ne dox na ci diggante xale bi ak Pam Ndoye lan moo xew. lan moo xew. lan bi sax dafa taxaw fi mu ne. BRT bi dafa taxaw di xaar caat mu jàll. ndeysaan xale bee noonu. BRT bi dafa pause may ki nga xam ne moom mooy caatu daaw dafaal mu jàll. ndeysaan mi ngi noonu. convoi caat ngeen seen mi dem mi dem. mi ngi noonu mbokk yi rendez-vous bi léegi-léegi arène nationale ci tuus ak bakk ak ambiance bi nga xamante ne dina am foofu ak Fouta Production